xibaari biti réew ñu koy dooree ak réewum Soudan fipp ga fa am mën naa am ay jeexital ci réewum Égypte bu ñu sukkandikoo nag ci ay boroomi xam-xam yoo xam ne dañuy jàngat waaye réew ma ñoom nag la ñuy xamle moo di jafe-jafe ñàkku kaaraange gi nga xam ne moo am ca Soudan mën naa la ba ak si foofee muy seen jàngat boo xam ne def nañu ko fa waaye nag yemuñu foofee ña ngay xamle ne dox gi nga xam ne nag moo dox ca seen diggante bokkoon na ca la leen doon lënkale ñu dem ba dëkk bi di beneen njiitu réew mooy di Patrice Talon gannaaw nag ba mu ñibbisee ci dëkk ci ab waxtaan boo xam ne nag ñu ngi ko doon amal ci ñi nga xam ne nag ñu nekkee ca kujje ga ñu xam le moo di li nga xam ne moo xew ci réewum beneen lu doy waar la ci wàllu démocratie waaye nag kàddam ya mu yëkkati doyu ñu nekkee ca kujje ga ndax dañoo jàpp ne dara du ci dëgg waaye itam do document bi nga xam ne dañu ko war a jot ngir war a dem ci élection législative yi loole lañ leen lënk lañ ñu jàpp ne nag loolee lu yéema la ci wàllu démocratie di dem ba RDC di république làmboo jàngoro ji di Ebola bu ñu sukkandikoo ci OMS di kuréel gu mag googu di yëngu ci wàllu wérgu yaram jàpp ne xeex bi dañ ko war a gaawal ngir faagaagal jooju jàngoro gannaaw jàngoro ji betoon fa faat lu toll ci juróom-ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent am lu toll ci junni ak téeméer ak ñeent fukk yoo xam ne euh, dëggal nañu jooju jàngoro bu ñu sukkandikoo itam ci Médecins sans frontières ma ngay xamle ne jamono ji jàngoro ja wàllaate ba ma ngay gën di yokku mu nekk nag loo xam ne jaaxal na loolu ña nekkee ca dëkk ba ñu jeexale ko ak réew France gilets jaunes ya nekkee foofee ba léegi ña ngay woyal ñaxtu yi nga xam ne nag moom la ñu tàmbali waaye nag di jël mbooloo mu bari waaye nag manifestation yooyu ña ngi ko amal te amul benn jafe bu mag guñ ca nemmeeku yi manifestation yañ fa mujjee amal nag am nay place yu bëri yoo xam ne jot na faa yàqu am nay place yu bëri yoo xam ne jot dañ koo yàq ñu nekkee foofu nag ñenn ña ña ngay ñaawlu jëfin yi nga xam ne nag dañu koy faral di amal jërë ngeen jëf mbokk yi li lañ leen indiloon ci xibaari bitim réew yi